Ama Balde papam laa daan supporté Balde ba pare papam am lu ma waxoon ma sa toog ma di ko interview boo maa nga Océan FM ne ko Falaye mu ne ma ko ci sa doom yi ko yaakaar ne moo lay doon ëllëg mu ne ma ñoo ko bàyyi ne ko mu ne ma papa Balde fit wi rëy na mën naa xeex du ragal waaye du mbër ne ma Souleymane Balde ma ne ko ah, mu ne ma taay bee ko yàqal kenn dàq ko bëri. ne ma sama kër ku fiy takk ngem Pathé Baldé la dàq bëre mais du du du du mbër xam nga sama yaakaar kan la ma ne ko ah, mu ne ma sama caat mi sama ngemb li ma daan ngemboo bés bu dugalee cuisse mu yem ci moom lu ma naqare woon ci ci làmb dina dinaa ko am kon yaakaar naa ne Fallay xamoon na héritier xamoon na itam euh, ne billahi ket diggante mag Malick Niang euh, dama cee am njàngat ba nëgëni dañoo indi avance bi ci biir kër gi Souley Souleymane Balde ne du fi dugg. yaayu waaw yaayu yaayu yaayu amaa itam ne avance bi du fi dugg Malick Niang avance bi du fi dugg. Falay ngi toog ci buntu kër bi Falay woo amaa ne ko lu ñuy wax ci bunt kër bi dañuy coow lu mu ne ko papa. moom yëgul li ko papa sama avance ak euh, Malick Niang la ñu andi ñu ne du fi dugg mu ne ko da ko ragal. mu ne ko man papa nii ma toll bu ma ragalatee sama morom jarumaa jox lekk mu ne ko jël xaalis bi koy daan mu ne ko loo loo ci jublu ci pour jël xaalis bi te ñu koy tere mu ne ko papa dama bëgg a jël xaalis bi rek faj la ci da feebar mu ne ko jël ko da koy daan bi bi bi combat bi laataa ñëw fa lay balde gaañu na nga xam ne kon kii am na fu lu papaam gis am na itam lu ko papaam ñaanal.